manam dina créer situation bo xamné sax day défavorable day ëpp. moy nga lek ba biir fess ah, parce que amna ndaw yi. wa non amna amna am Sénégal amna les ressorts. Mm-hmm. Mm-hmm. ak les ressources qu'il faut. très bien pour que ñëpp liggéey. Mm-hmm. ñëpp liggéey nak soit dit en passant baaxul ci réew sax. Ah, mais man nga am wa wa wa mais mën nga am. <laughs> le maximum le plein emploi. plein emploi du du liggéey ñëpp. plein emploi moy ñu liggéey ba mu am équilibre. mais day am chômage chômage aussi waaw waaw mais faites faites dama lay jox un exemple. Vous frapper. Si Vous êtes à Dakar nga jógee Dakar fii. Mhm. nga dem ba Kaolack nga vous Tambacounda. Mhm. nga dem vous nga ñëwaat Dakar. Mhm. genre triangle Oui. Parce que nga triangle Le Sénégal a amené toutes les ressources minérales pour liy dem si tabax kër. ciment fer béton. non non non ressources minérales. pour le ciment. pour la peinture. Ah, pour le carreau. Mm-hmm. pour défaire chaud, mm-hmm. pour défaire verrerie sable lourd mm-hmm. pour défaire le les huit éléments principaux qui concourent à la fabrication des matériaux de construction Sénégal am Sénégal doit si bëri malheureusement en moyenne au Sénégal les 70 de la valeur de la maison sont importés. voilà ah, justement ça équivaut à des destructions d'emplois à des renoncements plutôt à des emplois à du concurrence xam nga loolu loolu opportunité bu mag la boo xam ne defuñu si lu war am na nag début am na une base mooy les cimenteries Sénégal domaine boobu loo xam ne ciment du fi dugg justement tey bu dee Sénégal am na potentiel bi fii ba Kaolack ba yenn zones yi li fi am ci ay ay ressources mais lu ko exploité mais tout le temps kon dañuy importé loolu moo dem ba am ci li ñuy lekk mhm. boo jëlee ceeb boo jëlee sucre boo jëlee diwlin pourtant noonu la suñu àll bi amee lépp waaye duñ transformer dara même sous si ngay wax boo gasee ba génne fer bi wala ciment bi ba fii amagul benn entreprise boo xam dañuy wax ni kat yéen le privé national yéen a koy gérer seen bopp mi ngi doxal ci mbirum exploitation minière wala mi ngi génne dara di ko doxal ci warum koom ci Sénégal loolu lan lay impacté bu fekkee lépp Sénégal lu am da koy jéggaane bitim réew day ñëwaat suñu taux de croissance bi ma doon wax sànq. waaw tontu tontu ma ci bëgg naa nga tontu ma ci. waaw waaw dinaa si wax dëkk baa ngi yëngu. Mhm. ñu ngi vaillé vient yëngal mais coow li lu muy bari bari koppar gi bu ngoonee. Mhm. sunu taux de croissance maanaam PIB wu Sénégal bi lu ci bari ko takk ci ay ay jiba dugal ko ci ay compte banque mu gën Sénégal doo ko yëg du ma ko yëg. waaw ah, voilà loolu xam naa ne da nga bugg mu ñëwaat suñu waxtaanu démb bu ñuy préparé émission bi nga may nga may tàggat. mais un problème dama la néw non la dama euh. économiste nga. xam orientation changer la donne. Sénégal dafa jot ñu wax luy tax parce que ñu ngi tok ci benn nen wala bomb la voilà euh, PIB. ñu ñu depuis les années 50. Mhm. ay solo affaire yoyu ñu nañu aduna un héritier manam ñuy continuer di xalat mhm. ci affaire comme comme dañ ci xaw mhm. c'était ce n'est plus un indicateur pertinent. Mhm. PIB day calculer rek création de richesse. bu ñu créer au Sénégal. 1000 milliards par jour. 1000 milliards la la wax 000 fekk 1000 milliards yi disons 900 euh, milliards yi. buñ ko sous forme de bénéfice sur les sociétés dañ koy rapatrier à l'étranger moy dama ñëw sa kër. ay Sénégalais ko. waaw non dama moy nak dafa équivaloir ben situation. moy dama ñëw sa kër ma àbb fofu wañ bi ma togg fofu, ba togg bi paré ñu comptabiliser lima togg yépp sa bir kër. waaw ñu ne Mbacké richesse bu xam nga togg nañu ba paré waaye dafa fekk ñu ba paré yekk bi. lañ ko étranger. image boobu image euh, moy image des pays yo ont une extraversion de bëri manam euh bu dafa permissivité gis nga Chine par exemple mhm. dafa joxe ben exemple Chine mënoo fa ñëw nga investir fa ba paré da mhm. togg fofu ba paré nga né hmm. fa fa mhm. Chine bu fekkee dafa né atelier du monde amul rapatriement de bénéfices comme nous. koy investir. suñu dëkk yi très bien gis nga téléphone jëlal benn téléphone rek téléphone Apple. Mhm. nga xam ne daf fi bëre. waay euh, Chine mooy atelier bu ñuy defaree téléphone. mais mhm. richesse bi. Mhm. tuuti la si Chine may. compagnie yi koy defar. ñu génnee ko defar yóbbu ko seen dëkk. fii nag Sénégal. dañu am système boo xam ne boo toggee ba pare. nga defar richesse. nga am bénéfice. dañ lay kay maanaam dafa mel ni sax dañ lay yombalal ni ñu ko defee ni ñu ko yóbbee. mooy du am réinvestissement. mooy duñ ko toggee bi te lu si gën a lu si gën a li ma sa gën a jaaxal dama yaakaaroon ni. Mhm. dañ ko war euh, solution ñu indi si solution. Mhm. mais man dafa am lu gis man dama dama mën a seetlu. si yoon li ma gis gis mooy. Mhm. li ma dul woon gis Sénégal dama ko gis fi mu kon gën fi bëri. mooy booy dox côté Almadi ngay dox côté Ngor. nga ñëw ba Sacré-Cœur foofu laay jaar. damay wàcc di xool ma gis chantier yu bëri ma gis ay ouvrier yoo xam ne dëkkuñu fi. waay ouvrier yu njëkkee yeneen réew xam nga ñooñu si yàqu PIB bi dañ si bokk da ngeen di fay salaire parce que PIB si ñaari domaine lay dem ñett ñett principalement mooy fiscalité bu ñu si fay mooy salaire yu ñu si fay mooy capital bu ñuy investir bu ñu si fay bu ñu si récupérer capital bi dafa am loo xam ne lu bëri day dem bisim réew mhm. salaire yi mën nañu jàppoon ba léegi sénégalais yi ñoom ñooy jël salaire yi mais dafa fekk léegi tamit sénégalais yi ni ñu si doon am mi ngi wàññeeku parce que ouvrier étranger waaw mhm. comme chinois yi dañ ko waxee noonu mhm. comme indien yi bu ñu ñëwee ñoom dañ ci am seen wàll ñu yóbbu ko seen dëkk mhm. loolu yëpp day créer un assèchement des financement des conditions de réinvestissement beneen bi mooy euh, boo jàppee euh, maintenant lo xamné peut-être la ma ko mais bëgg naa wax pour illustrer li ngay wax mhm. dafa am dama la wax légui Sénégal buñu ñu def affaire bi nu mu waree mhm. ñu jappalé secteur privé national mu dugg ci source parce que encore une fois mhm. gis nga secteur privé bo gis mu taxaw content taxaw am forme di liggéey nu mu waree rôle état mhm. créer un champion. créer un champion état que le secteur privé soit fort état exemple mhm. États-Unis président visionnaire mhm. pour créer secteur privé États-Unis ont en 1933 en 1956 ben loi Small Business Act loi pour les PME. loi marché bi américain États-Unis ba président bi sax. dañ di protéger ba ba président né Roosevelt Mouné, Vous bu fekkee jar na sax euh, ñu bañ ñu am si tension. Mhm. jar ko pour que mu gën a cher fii. mais fii la ñuy jëndee lu ñuy lakk. Mhm. local bi. local. Mhm. Amna Yenen aussi yoo contraire au Sénégal. waaw <laughs> bon Sénégal defu ci defu ci defu ci defu ci lu war dal. defu ci defu ci soriwu si amna yo xamna ay instrument la ay instrument institutionnel manam ay outils yu état bi yoré moy buñuy dépenser le budget budget budget dafa am rôle budget dafa am mission budget du pour jënd rek du pour jënd rek wala fay salaire non budget instrument de politique économique la da nga si defar sa réew waxuma rek nga jënd nga né tabax euh, route wala tabax na hôpital déedéet budget pour tabax route pour tabax hôpital ba paré defaraale les conditions d'une souveraineté. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga loolu loolu instrument de politique économique la mm-hmm. boo budget bi nag nga seet exemple euh, de pédagogie mooy les bourses de sécurité familiale. waaw Sénégal ñu ngi dépensé xaalis bu bëri. et quelques milliards. waaw mais xaalis au delà de xaalis bu muy jox bu ñuy jox ménage pour nous siy faj seen soxla. munoon nañu ne en contrepartie yow Demba Diop. da ngay jox xaalisu budget. ñu ne xaalis budget Sénégal lañ lay may. Mhm. waaye kat teg nañ la benn affaire lépp looy jënd na nekk Sénégal yi. très bien terewuñ ko. Mhm. buñ ko defoon. Mhm. dina créer emploi Sénégal. waay day fekk. moom lu muy jënd araw bu muy jënd si maire bi. maire bi dina ko jox liggéey. waay chemise bu muy jënd si maire bi. dina jox maire bi liggéey. soow bu muy jënd dina jox keneen ku jaay kotu soow bi ainsi de suite ainsi de suite mais contrepartie boobu c'est-à-dire cercle vertueux boobu ñu waroon créer nga xam ne bourse de sécurité familial fu ko jëlee. Sénégal fu mu ko jëlee Brésil. Brésil dañ koy def. gis nga président bu ñu élire tey Brésil. Lula moom moo ko indi Brésil. mu tabax ko mu teg ko foofu. mu ne brésilien yi am leen naa leen jox waaye dama bëgg lépp li ngeen di def muy jëriñ dëkk bi. ba pare moo tax moom génne na sur 150 millions de brésiliens. génne na à peu près 40 millions de brésiliens de la pauvreté. parce que dafa am benn cercle vertueux xaalis bu ñuy dépensé par le budget day ñëwaat si koom-koom bi fii lay des lu ñu si jënd leen ñu siy investir dafa am ay exemple yu bëree bëri moo tax ma ne la macha allah ma ne la sànq ah, ah. Euh, bu yëpp jaaroon yoon Sénégal non seulement dina am emploi mm-hmm. mais dina dem bitim réew di wuti ay liggéeykat di ko indi fi très bien monsieur Ly bala ma lay bàyyi euh, liggéey nga ci APIX mm-hmm. liggéey nga ci plan Sénégal émergent bi ci yenn secteurs yi mm-hmm. mais xanaa dooni ma li nga wax nii ci xam-xam ñu wër suñu état yi paré président Macky Sall tout courant ñi fi aw ñep lay wax mm. parce que échec bu ko fi am chel bi ngay bolé mm. mo fi nek actuellement mais est-ce que tay li nga xam ni ha doon yow yaa ko xam ha doon ma économie bi nga jang yow ya ko jang université mm. mais mais mais lan non dama yéemu ah, li fi génn ci xam-xam mais lan moy problème Sénégal ba duñ ko jëf lan lañ moo ñu tënk exactement lu tënk Sénégal lan la exactement ba tax ñu tollu fi ak lu am li ci ay potentiel parce que li nga génne fi mom sàq la muy taxaw grenier waaw. waaw lu si lu si génn fii bon loolu du affaire parce que man li may wax nii. ñu ma ñu ko gën a xam ñu ngi fii xam naa leen. pourquoi duñ ko jëfee laa bëgg a laaj ñu ko jàngal ñu ngi fii Sénégal ñu ñu ngi fii si administration bi. Mm-hmm. ñoom ñoom ma ko gën a xam. man dama toog di mm-hmm. liggéey ak ñoom. Mm-hmm. di gis di gëstu aussi. waaye euh, li may wax c'est en toute modestie am na yoo xam ne man xaw ma ko sax. ñoom ñoom ko gën a xam ñoom ñu ah. liggéey. maintenant man dama nekk comme Demba Diop. man tamit bokkuma à appareil politique. Mhm. peut-être que dama vais def politique peut-être je ne sais pas. Mhm. Mhm. mais pour le moment. j'ai pris l'option de ne pas faire ça euh, euh, pour des raisons personnelles. mais mais. volonté politique bu amee. ma lu tax duñ ko def. volonté politique waaw xam nga dafa am aussi Sénégal marqueur important daf mu marqué ñu mu marqué suñu kom de manière très très très profonde dafa mel ne nag boo jël nga fer rouge. Mm-hmm. mooy programme d'ajustement structurel. Mm-hmm. waaw dafa koy Afrique. Mm-hmm. FMI Banque mondiale di indi si ñun pratiquement programme boobu dafa am affaire ligne de conduite la. mooy privatiser. dañuy concurrence ngeen ubbi. ngeen euh, étranger yi ñëw. Mhm. ngeen libéraliser ngeen privatiser madame économie libérale. Mhm. lolo andol ak. économie bu jeune comme le Sénégal. économie bala muy nekk libérale. fay taxaw ba Euh, misal bu may joxe rek moy mhm. xalé, xalé bu ndaw ñu né la xalé bi kat. il faut nga bàyyi ko mu dem di fo si mbedd mi. xam nga loolu doo ko def. parce que xam nga ni xalé bi tànk yi dëgërul. munul fayu. Mënul joy rek la Sénégal dafa am jeunesse bobu jeunesse bobu motax mënul concurrencer nga entreprise entreprise. Mhm. parmi les les les les plus grandes entreprises. Mhm. bo si jël PIB Sénégal. dañu bari dañu ñëw mhm. di concurrencer Serigne di concurrencer Babacar di concurrencer Kenen Amadou tu vois dafa am ay entreprises yoo xam ne. Mhm. xëy na dëgër nañu sax à nationale. Mhm. mais boo indé, ay mastodonte internationaux yoo xam ne ñu ñëw fii. Mhm. dañ leen di bumax. waaw seen tànk. même bu dëgëree. dëgërugul buy tax. Ah, ñuy song yooyu di concurrence ak ñooñu. très bien xam nga xam nga délai critique boobu de maturation. moom la ñu programme d'ajustement structurel mayul. moo tax ñu ñëw ñu ñëw ak loolu. depuis 1980 ba léegi muy dem muy dem arrêté nañ ko sax mm-hmm. mais effet yi mi ngi à long terme te sénégalais yu bëri yu mm-hmm. décidé mm-hmm. à tort ou à raison peut-être de bonne foi dañu gëm ni ajustement libéralisme baax na si ñun man gëmuma loolu loolu mënu gaañ alors merci euh, Abdoulaye Ly indi nga lu am solo ah, loo xam te ne benn point boo ci jël mat na émission ci xam naa ne duñ gëj ji waxtaan man ak yéen ak ñeen ak ñeneen ndax man gëm naa ni li nga wax sànq volonté politique bu amee parce que dama analyser bi ni waxtaan démb xam nga damay def briefing ak yéen ñi ku ci ne mayel dama gis lii ak lii ak lii moo tax ñu bëgg a def émission bi ci léegi lii bi ma la waxee ni la taux de croissance mu wax ma lii ma ne ko ñoo ci bokk même point de vue ndax yàgg naa ko wax ma ne dëkk bi léegi jamono ba naan am nañ 7 virgule 2 pour cent ci croissance buy dox ñëpp di bàkku ni acca mais attends téewut foo romb yaa ngi gis maire bi jaay cere ci mbedd mi ña ngay rang kiy jaay soow ci mbedd mi nga xam ni kon Sénégal yi dunduñu ci biir capital bi ndax ñun ñu dëkk ci kaw gi lekk cere du problème ci ñun xam nañ ko ñun ñun kaw kaw yi diggante ci li ma ak ñaaxeen Touba xam nañ cere ñun mais nag yéen waa dakaar bu ngi demee ba ñuy jaay cexe ci buntu kër yi di ko rang muy fees kon y a problème économique y a problème nit ñi kon dunduñu ci jamono boobu avant Covid la woon ñu ni kon croissance li koy dëggal mooy lii dëkk baa ngi yëngu koom-koom gi ñu ngi togg waaye bu ñu toggee pare dañuy jël cin la yàq ci bool takk bool ba yóbbu bitim réew loolu nag kon yéen ñi fi nekk ci réew war a investir yore entreprise kon il faut ñu am politique bu leen jàppale. ngir ngeen mën a créer emploi parce que wax ji mooy yéen état créé wut emploi. parce que bu dee policier état du ko jël ndax du créer emploi li muy jël instant yi ku xam ne gab bi na bu jëlee santé mbal ja ci am évite naa ba taay mu ne ma am nañ problème ay presque ay 2000 wala 5000 nangam. ay ci kon amul fooy dem ci secteur yi état di gérer ci amul ab gab bu metti bu aaje jël ay agent ci wàll googu. mais defuñu quoi? boo jëlee santé euh, même même même même avocat ci tribunal yi dafa manqué lu kon voilà da ngay dégg vous la documents, dossier bi dossier table juge état li mu war a jël loolu day wane waa ne kon Sénégal am na li xëy na maa ngi def benn commentaire mais pour ñu bëgg résumer un peu li tax ñuy waxtaan ci waxtaanu économie mel ni ci am solo bu Sénégal tolloo fii tey alors ma ñëw ci yow tuuti euh, Ndongo euh, Ngouda très bien Ngouda Fall euh, ci wàllum formation parce que nag bala nga naan nan ne fa lu ngeen jàng-jàng lu ngeen bari ay diplôme bari ay diplôme ci marché bi liggéey amul waaye na am na benn côté dama naan lu tax hmm, du ngeen def li daan xëy na auto emploi entrepreneuriat mi ngi fi Sénégal boo jëlee commerce bi la ci Sénégalais yi géré lu néew la peut-être grossiste bi la Sénégalais yi ak indi ci mat indi indi import export bi waaye détaillant ba nga xam mooy indi dëgg-dëgg koppar gi nekkul loxol Sénégalais yi leneen ak leneen mi ngi koy wax sànq ñiy liggéey léegi ñu ngi fi ñëw jël liggéeyukaay yi ñun Sénégalais yi am ngeen ci responsabilité ngeen jeunes responsabilité. mais comme ni ma koy waxee. Mhm. comme moom it dam ko waxee. volonté politique la. Mhm. loo gis volonté politique la mais permettre moom rebondir si lenn. mooy dafa am au Sénégal. Mhm. li naan état yi nga xam ni fonction mhm. publique moom la gérer. sànq daf ni ma privé bi mooy gérer question de l' emploi. secteur privé am na si wàll. état am na si wàll. entrepreneuriat am na si wàll. profession libérale yi am nañ si wàll. te profession libérale yi dañoo large. muy euh, pharmacie euh, magist kii euh, nu mu tuddati notaire yi. Mhm, mhm. et tout ça sont des avocats yi. Mhm. yooyu yëpp profession libérale yoy meun nañ ko oubil ñi nga xamni ne ñoo jàng wàll woowu. ci dess des muy fonction publique tay kenn xamul na ñu recruter fonction publique. da ngay jégg saa rek ñu ne la liste génn na. fan la liste bobu jël site bu ñuy ubbi def appel mais site bobu noonu man dama lay wax fonction publique kañ la si inscrire. 2015 hmm. la si euh, astaghfirullah 2015 fekk na ma ubbi ma ubbi compte fonction publique am na ñoo xamante récemment la ñu ubbi compte fonction publique dugg nañ. Je ne sais pas. Hein. Mhm. Mais parfois, il y a des gens qui mais ont gens ça. Il y a 5 000 et quelques employés, qui ont annoncé. Mais les gens qui avant 2020. Oui. Mais les gens qui ont aussi Même pas 000 personnes recrutées. Mhm. C'est des questions nous ont mettre sur la table. Mais c'est ce que je responsabilité tay limu wax ni amna na solo mhm. ndaxte boo bo doxé ci dëkk bi li nga xamni la plupart euh, des emplois yi nga xamni mën nañu soulager sa population yi nga xamni ni seen njàng demewul noonu mhm. ñeneen ñoo ko téye seen loxo muy les étrangers les ressortissants guinéens wala mhm. les nigériens ñom ñoko té ko seen loxo bo démé tamit si ñi nga xamni ñoy ñooy amener des investissements au niveau national bu ñuy ñëw dañuy indaale seen seen i euh, personnel mm-hmm. ñëw mm-hmm. dañ la koy imposer boo demee administration yi tey mm-hmm. boo demee administration boo dem ay ressortissants étrangers nga fay fekk boo demee feneen ak euh, feneen di administration Sénégal dama tey tey bu ñu lay joxee financement dañ lay imposer un personnel loolu moom mooy le problème là où le bât blesse tey bu fekkee ni secteur privé bi sax dooleel nañ ko comme ni ma koy waxee ndax am état employeur nit ki mën nga dugg

yaa y a il y a trop de choses à réformer bien vrai que président réforme. président euh, réforme yi bëri na impact mais tamit réforme yooyu même bu bu baaxee tamit. Mhm. amul impact amul suivi. loolu mooy loolu moom mooy suñu problème. mais mais taxawal un peu par rapport ak euh, métier yi. Hmm. tudd nga sànq nga ni fagleer fees na dell. mooy ma tooñ ko ñoom sama gars yi ñoom booy Abdourahmane Ly gitaleer hmm. yi ñoom voilà ñoom làkk tubaab mu neex lool euh, mais fag baax na mu baax na mais nag Sénégal dama koy wax wax naa la ko démb yaakaar naa ak euh, ñoom Demba bi may préparé yenn émission leen euh, dëkk yu bari développé wu boo ci gëstu da ngay xam dafa bari ay ingénieur hmm. jëlal Japon ku ne xam na deuxième guerre mondiale dafa xewoon on parle de la technologie ah, nga jël dëkk yu bari Thaïlande nga jël dëkk yu baree bari Chine hmm. ñi ngi ci technologie bari ay ingénieur Sénégal dafa mel ni kon c'est le contraire. Sénégal moom c'est le contraire boo demee sax si yi nga xam ni ñoom mooy euh, ay euh, écoles yi formé ay ay ingénieurs ak yooyu lu néew la ñuy jël. cinquante personnes boo demee tey ENSA. Mhm. l'agriculture para ingénieur agronomie yeeg yooyu cinquante pour cent. Euh, cinq cinq vingt mhm. vingt cinq lañu daan jël. tey ñoo ngi si cinquante personnes voire te ubbiwuñ ko. pour mhm. pour le privé également. te yooyu c'est des c'est des problèmes tay you lettre bi ngay wax parler si. Mhm. système colonial bobu non moñu ñi enseignants vocation mhm. aspiration pour nekk ay enseignants. Mhm. comprendre nga mais système euh, colonial bobu euh, révolu mais on tend vers la révolution technologique. Nous mhm. nous orienter le système éducation vers euh, vers la technologie loolu moom mooy le normal. Mhm. bu nous orienter ay nit tamit à la faculté. Nous donne une portion pour maintenir, c'est très réduite. Mhm. Lors, loolu bu ko peut-être suba. ay orientation la politique là. ay orientation comme nous mu ko avec rek. c'est ay bourses pour pour euh, scientifique yi bon voilà y a na y' a problème. bourse scientifique et tout ça. Mhmm, mais du la base nga koy régler classe euh, yi nga mm-hmm. euh, moyen secondaire on nga koy régler mm-hmm. da ngay gis euh, def mm-hmm. troisième S dem ba ci kalam mu dem L continuer wala ko xamanteni on def S encourager wuñ ko les ne pas là-bas mu dem ba ci dem L pour faciliter diplôme baccalauréat et tout ça ce sont des choses yoo xam te war nañ ko teg si table bi mm-hmm. bu ñuy jàngat benn mbir dañ ko war a jàngat à la source à la base mm-hmm. ñu jëm si si échelon yi nga xam ne moom moo gën a kawe macha allah waaw ok macha allah euh, Ngouda ah mais damay ñëwaat un ci ki nga xam moom mooy inspecteur du travail bi mm-hmm. euh, di Demba Diop Demba bi nga nekkee directeur de l'emploi dama mës a def benn remarque am ko ma ko mës wax ni ma xoolal li gën a sew ci kër gi

dana am fu mu toll macha ndax ñu dox ko ne xam na ko tey bu ko continué ni ci manque de formation bi amuñu entrepreneuriat bi amuñu liguey bi ban Sénégal la ñuy am ak ban koom-koom la ñuy am. Euh, Sénégal bu ne am mooy bi may décrire bi ni commencé. Mhm. je ne suis pas un négationniste du aussi un pessimiste et parfois bu amé occasion yi. Mhm. il faut ñu wax nit ñi lan mo am ak lu nekk. Mhm. pour que ku nekk jël ci jangat ñu xamni ni l'heure est grave aujourd'hui mhm. wax nga lutax les choses ne marchent pas. mentionné nak lii aussi wax nak Sénégal seetlul programme yi fi am yépp buñ koy tëgg buñ koy annoncer président moo koy lancé. waay wax na wax na wax na wax na. réforme wax na lépp wax na lépp. mais bu ko président lancé objectif yi na ñuy wax objectif yooyu ba programme bi di e, directeur bu koy jiite objectif la mm-hmm. tandis que nous planification une planification au sérieux mm-hmm. Mm-hmm. suivi évaluation problème au Sénégal la. et looloo tax tey ñun lu ñu lu rek. réalité du institution yu région mais nous on ne parvient pas à faire marcher les choses. tey programme sur les 35 dont je t'ai parlé. Mhm. boo si jël bu muy démarrer ñëpp dañ ni la solution moo nekk nii. Mhm. tey employabilité mooy capacité pour nit ki. Mhm. jàng am xam-xam wala am qualification. mën trouver rapidement liggéey. mën téye liggéey boobu. mën liggéey boobu changement bu ci am mu mën ci continuer ko gérer. adapté mais aussi et que liggéey boobu bu ko ñàkkoon suba si entreprise wu lii. da koy jëli si sa entreprise. day amaat emploi automatiquement. loolu mooy employabilité maintenant lolo, du lu fixe. Mhm. monde bi yepp boo jëlee jawoon nañ un tableau 20 compétences yi extra naan compétences etc. extra affaire bi du lolu dëkk bu nekk économie bi fu mu toll. Mhm. employabilité bi non dañ ko war a mesurer. Mhm. Euh, BAD dafa def ben étude. sur l'impact PSE sur l'emploi. ñu ko def en 2018, mu publier en 2020. Mais si mais bu ñuy xool tableau PSE bu mu lu mu produire ci emploi. entre 2014 et 2018, moy PAP 1 dafa ni emplois 73 c'est des emplois qui étaient occupés par des non instruits hmm. mooy construction san jam ñaajoog yooyu yooyu ngëpp hmm. ngi fi gisoon hmm. ñi doon liggéey ay manœuvre la 73 mais là mu teg si 1 pour cent kese ñoo de niveau maîtrise doctorat ak ak ingénieur ça veut dire que première phase au PSE du une phase boo xam en réalité situation Sénégal la bu xam ne bu metti woon la boo xam ne qualification. et ñun dañu jiital loolu jaay ko pourtant amoon nañu qualifié mais du ay sénégalais. léegi nag loolu une wax inadéquation. Mhm. Euh, euh, qualitative ou quantitative. des fois dañu la inadéquation entre formation et emploi. Mhm. des fois di nga am économie nu muy tëggeewoo. Mhm. par exemple tey banque finance assurance. waay xale yi koo si jël mu dem liggéey. mais loolu ay société d'intérim parfois. parfois aussi banque li muy jël si nit du bëri. Mhm. Mhm. foofu quantité bu fa nekk banque yi mënuñu ko absorber te xale yaa ngi koy continuer jàng école bu nekk am na banque finance assurance. Mhm. mais y a d'autres yoo xam ni. par exemple mën nga dem hôtellerie wala yenn secteurs yi dañ lay wax ne la les techniciens intermédiaires. souvent dañ leen dul am ci yenn entreprise yi te sénégalais loolu la nangul jàng ñëpp dañu bëgg nekk cadre. waay supérieur. Mhm. ñëpp cadre supérieur nañu ne. koo gis sax daf naan la gestion hôtelière yow yaa ngi naan génn université ku lay jox hôtel la. gestion hôtelière ça va difficile. Mhm. donc il faut que ñu def ay renoncement. Mhm. il faut que à moment donné nit ñi nangu euh, benn moment. ñenn ñi nangu jàng bi ñu am fu ñu ko yemale. dem liggéey. continuer bu ñu bu leen neexee. parce que su qualification professionnelle mhm, mhm. université pour université pour ñi nga ni dañuy ji mhm, médecin truc mais su quest les la tax pour formation professionnelle. très bien président dernière fois conseil des ministres dit ah. gouvernement bu le conseil des ministres il en a parlé objectif de formation professionnelle. Moi, ñu atteindre 30 des effectifs. ñu mhm. ñu jël en réalité au niveau de la formation professionnelle. très bien mënaguñu 30 mhm. donc ça veut dire que c'est le défi majeur mhm. deuxième chose da ngay gis ay structures ñu nous fi. Euh, tey DER participer peut-être à l'entrepreneuriat, mais il y a ci écosystème entrepreneurial. mais écosystème entrepreneurial est faible dafa des. parce que critères yi ñuy wax yépp mooy des na Sénégal un euh, groupe bi j'aime. wax Euh, euh, dañuy def comme euh, doing business dañuy publier chaque année ay rapport loolu man damay gis ni Togo mu si damay gis ni Maroc mu ngi si mais Sénégal nekku si. Mm-hmm. ils ont douze indicateurs yi wane ni écosystème entrepreneurial nii lay tëggoo que mm-hmm. booy bu bëgg entreprendre. Mm-hmm. lii la ko état bi offrir. muy loi mhm. muy ndax entrepreneuriat ñu ngi koy jàngale primaire. Mhm. ndax ñu ngi koy collège lycée université. université. un indicateur bi état bi ndax def infrastructure mhm. dans les y a des structures d'accompagnement, fiscalité, il y a douze indicateurs. C'est loolu gisuma ci Sénégal te fu ñu nekk ni ñoo jël pay wala ñoo am les meilleurs trucs. 3FPT. <laughs> c'est ce fi. c' fait. des des des dispositifs. bon mais soxlawuñu di def ay ramifications ak ay projet yooyu nanu dajale lépp def ko ci ay structure mm-hmm. ñooñu ñu defal leen contrat de performance exiger leen ay résultats parce que l'heure est grave c'est-à-dire que l'association des diplômés chômeurs mm-hmm. ñii kenn du leen bàyyi nii ñuy toog télé rek di casse mm-hmm. c'est-à-dire que dafa métier. il faut que am une réaction urgente sur le stock de chômeurs qu'on a actuellement buñ si agirul après làmb yi li ngay gis rek. Mhm. booy yi di daw di raquette et cetera. loolu dañ ci war agir problème de sécurité la. de deux il faut ñu anticiper si xale yi nekk primaire. changer orientation mhm. bi. le Sénégal émergent. Mhm. Sénégal pays bu pétrole am gaz. Mhm. nan la wara a donc yan lan la ñuy soxla métier lan wara a préparer xalé yi loolu. troisième chose. muy ñi nga xamni euh, enseignement supérieur. dama ci def un article dernièrement. Côte d'Ivoire la ko la ko la ko présenté. fan lañ publier. ok j'ai écrit sur l'enseignement supérieur ak insertion enseignement supérieur dañu changé le système LMD. Mhm. université mhm. système LMD c'est une ni euh, efficacité externe Il faut ci élément de de performance des mhm. universités. mais un seen contrat de performance Mais mais amul benn université bu top. gis naa UGB mi ngi góorgóorlu gis naa UCAD. mais mënuñu la wax un taux de performance. tout à fait man calcule pour bu UVS en 2020 UVS euh, sur le nombre d'étudiants que l'UVS a quand j'ai fait la simulation. Euh, efficacité externe bi zéro virgule soixante soixante onze pour cent la. Mm-hmm. c'est-à-dire que ñi ñi ñuy dugal comme étudiant. Mm-hmm. dans l'année zéro virgule soixante onze pour cent ñoo ciy liggéey wala ñu entreprendre. Mm-hmm. université yi il faut ñu taxaw si. collectivités locales yi. acte trois de la décentralisation la ñu mais collectivité locale état la ba mhm. il faut que gars aussi jël yenn sen destin en main. Mhm. ñu ngi wax Sandiara ñu ngi wax euh, malikunda ñu ngi wax leneen. na ñeneen ci gor gorou les gens ils demandent les voix des populations. aussi mhm. ngir yalla bo demander voix aux populations yi. xam rôle. amal solution parce que budget état aussi di nga xaar pour di di investir bu fekkee loolu rek. na nit ñi bàyyi localité quand même ak ñuko vraiment donc il uh-huh. y a un autre élément également. Uh-huh. muy euh, la croissance ne se mange pas c'est une situation qui me dépend de mhm. c'était avant, euh, avant Covid. C'est -hmm. Mhm. Sénégal, ANSD, là, le y a des chiffres, j'analyse tout le temps. Mm -hmm. Instant ANSD, on a 336 000 salariés dans le secteur privé. 336 000 336 000, 336 000 salariés. Mhm. Fonction publique, on était au maximum à 160 000 agents de l'État. Bon, on 500 000. C'est-à-dire sur les 17 millions, les ligues d'un salaire 500 000. Nous avons a même entrepreneuriat, mhm. presque le secteur informel de l'Indien. L'ordre C'est-à-dire que c'est des situations très compliquées mhm. qui mhm. demandent quand même des interventions en réalité très, très, très poussées. Déterminer si, deux éléments muy benn bi la question des femmes dans le monde du travail. parce que mhm. aussi. waaye bari na chômage. ji taux de chômage au Sénégal mhm. actuellement. Mhm. Euh, trimestre 4 2021. mooy bi ANSD mu jigéen. waay taux de chômage bi. bu c'est très élevé Sénégal gëj na yegg foofu. 17 24 virgule ñi 13 pour cent la. jigéen ñi. jigéen ñi ah, voilà <laughs> kawe na ñoo gën a 2021 inspection du travail yi bu ñu dajale liggéey Sénégal 69 886 contrats de travail moo fi 69 000 27 pour cent yi rek la ñi occupé woon occupé woon mhm. Mhm. lu tax mu gën même stage boo yi dañu am problème 2021 4056 stages moo Sénégal yu formel 4056 si étudiants. Mhm. si élèves. et les étudiants ils ont 200000. non problème bi bari au Sénégal. donc c'est-à-dire que dañ si si cin boo xam ni day il faut que maintenant. Mhm. que appel mhm. que les gens soient dans beaucoup plus de sérieux une ah. déclaration et puis nous liggéey ku nous aussi da ngay très bien. ku mënul nga mais nous dem vers beaucoup plus de sérieux Nous avons une urgence là qui demande des interventions ardues et dans tous les domaines. très bien. Demba Diop. Mhm. indi it lu am solo ah, comme d'habitude ci ay analyse ma ki jàngatam. Mhm. waaye nee woon naa leen euh, FMI defoon nañu benn rencontre dama koy teg na leen. Mhm. ndax problème de temps la. ñu dem directement ci ay doomu Sénégal yi nga xam tey am na lu ñu def damay tàmbale ci euh, benn portrait boo xamante ni bii euh, wala sax ma tàmbalee ci Aïssatou Kane Aïssatou Kane dafa demoon université fekk fa ay étudiants yu créé lu ñu duppee def seen auto emploi

Abdoulaye Sakho ak Pape Momar Niang taxawal seen projet wu bopp wuute fu ñu jóge Abdoulaye Ziguinchor Pape Momar Fatik, waaye bokk bëgg-bëgg ñu taxawal lu ñu duppee seetalement di raxas ay dàll tàmmale kaak ñeent téeméer koot. ñun gëmuñu ko ñun au début ba ñu commencé seetalement sax mu ngi ni Pape Momar mi ngi ni 2000 francs la dañoo toog ma ne Pape Momar wax ji su kii idée bi suba dañ koy commencé. mu ne ma mais booy yor ñu xaar ma idée bi mu ne ma ma ne ko ñaata nga yor mu ne ma man de maa yor 2000 francs ma ne ko indi 2000 francs boobu ñu dem fii cantine bi jënd ñaari boros jënd omo 200 waaw yaakaar naa ci 2000 yi looloo ci xajoon omo 200 kii le matin après bañ ko jëndee ay 17 heures après 18 heures ñu ne ñu pavillon bi nga ñu yaakaar moom lañ njëkkee dugg première chambre faale wuñu deuxième chambre yaakaar naa fa la ñu am benn paire

mais dina mengo ak suñu lu jang bon biir faculté des sciences économie et gestion chaque jour ñu ñëw nak du def suñu xel ni que yeen jeunes yi war ngeen mëna créer dara waroo leen dépendre chaque jour ñëw ci état di demander dajale suñu diplôme dem ci entreprise déposé non war nañ mëna créer dara lo xamni ñun jeunes yi war nañ mëna créer lo xamni ni ëllëg dinañ ci gis suñu bopp. ginnaaw reetaanam bi ñu seetlu si ndaw yi ab sàkk boole jang ak liggéey doon lu jafé waral ñu koy def ak xarañteef. depuis un mois ñu ngi koy créer mais liggéey bi nu muy demee bon suñu jëlee dal yi dañ koy marqué dal yi bu ne dañuy bind tour dal yi fii. léegi dañuy jël turu nit ki ñu bind vert bon marqué dal bi nga xam ne dàll yi dañu mélangé wu parce que client yi dañuy bëri bon après noonu lay demee après suñu ñëwee ñu def bon lavage bi après su paree ñu weer ko si naaj bi di toog bon après xaar moment bi heure bi nii day fekk daal yi presque wow après bu ñu paree bon ñu livré waat ko ñoo sóoraale loolu yëpp le fait que du am impact suñu jàng parce que le matin bu ñu yeewoo matin teint bi lañ koy raxas bu ñu koy raxasee heure bi day fekk bon le matin bu ñu koy raxasee weer ko mun nañ dem defi suñu yenn besoin après suñu paree suñu defee suñu teedee wala yenn saa yi même bu nekkee dafa am benn genre comme de coïncider ak examen dañuy ñëw pause dañuy pause quelque temps ba examen yi jàll suñu paree ñu delluwaat suñu liggéey. ngir étudiant yi raxaslu seen i dàll téeméer dong la ñuy fay waaye nekkul lu yamale ci biir université bi am nañu ay clients ba ci biti. le fait que ñu publier ko ñu ngi ñuy woo di demander ñu ñëw jël si seen dàll yi bon même tamit étudiants yi tamit ñoom tamit ñoo en même temps daal liggéey bi si biti ak si bir fépp lañ lay demee. surtout si ok si biti surtout si biti. si biti ñu ngi ñuy en grande quantité le fait que ñu ñew pour ñu ñew jël ci dal yi bon parce que nombre mom grand na mom au début daanoon nañu raxas ay 10 mais légui dem na ba nombre bi augmenté wu ñu ngi dem ba ay 24 étudiants yi moom ñun ñep 500 lañ leen défaré mais au delà de au delà de campus moy le fait que ñu génn si suñu génné génnee dañuy calculer wala transport avec coût yo xamné bon mëna bon affecté travaux après bon ñu facture le transport bi 500 raxas yi. toog ba fu nekk ñuy dégg setalma mu doon entreprise bu mag mooy mëbët waxambaane yi. toog ba fu nekk ñuy dégg setalma di yaxanal lu ñuy am ngir seen bëgg-bëgg bi mëna antu. am ay yelen lavage yo xamné du dal kese mëna ay tenue raxas bon surtout ay lavage des des étudiants moy seen vêtements yi bon gën ko defar am ay machine ay tout ça bon gën ko élargir daal loo xam ni dina mën a satisfaire bien bon les besoins de la population sóoraale loolu loo xam ne dinañ gën a mën a am espace boo xam ne am magasin tout ça bu ñu épargner bu baax pour suñu projet futur nekk étudiant ba pare sos sa liggéeyu bopp lu mën a nekk la lii waxambaane yi tekk di ko firndeel. nañ xam ni que c'est pas ñëw université jàng du de ñëw jàng ay diplôme dajale ko ba pare dem uti ji liggéey man sama conviction du loolu man sama conviction mooy li nga xamante ne da nga ko jàng tu dois mettre ça en vraiment lu am solo la muy réussir au Sénégal lu mën a nekk la mooy toog tekk ci réew mi dañ ko dugal suñu émission ndax li waxtaanee tey muy mbirum auto emploi alors monsieur lii Abdoulaye. Euh, xam naa di nga kontaan bi nga gisee lu mel nii étudiants yi jóg nañu ni ñom bëgguñu rek jàng woon sawatul liggéey waaye dañuy jang ba pare di jëfe li ñuy jàng fi nga xam mooy université. waaw loolu euh, point clair la si suñu discussion tay employabilité. Mhm. alors bu wax employabilité. Mhm. il faut que mu leer. man j'entends l'employabilité ni ma ko comprendre mooy la fexe ba am xam-xam. bu lay tax a jëf nga mën liggéey liggéey bi nag du dem di fayeeku rek salaire liggéey dafa am ñaari fànn mooy emploi yi ñu lay fay weer bi maa ngay ñàq ñu lay fay weer bi ma beneen boo xam ne yaay liggéeyal sa bopp ba créer emploi boobu mooy boobu mooy auto emploi mun nga nekk yow rek kot loolu loolu amul problème mun nga nekk yow rek kot ngay liggéeyal sa bopp fekk yow yaay def avocat noonu lay def mhm. loolu mooy emploi euh, euh, libéral auto-emploi auto-emploi bu ñu emploi salarié am na lu mu wax léegi solo trop je crois que l'État en est conscient Ce que li tax ma wax c'est que dañu def une réforme bu mak, man réforme je dama dama si content, faire. ko Moy réforme du PSE je crois que moy la réforme numéro 10 alignement de la formation sur les besoins de l'économie Madame Fekheba, formation yi ñu Sénégal nous ko le Sénégal soxla bu rek Sénégal homme de lettres Sénégal a un Sénégal médecin ingénieur agronome informaticien téléinformaticien C'est ce que du point de vue de la structure mooy du point de vue de la quantité manqué le Sénégal Madame, Nous, dafa am euh, sengor nous lu am am fi son côté littéraire son goût pour la littérature dafa marqueur un marqueur historique nous ñuy top. autant au début des années papa ñun nous xam l'admiration de Senghor. Mhm. le senghorisme, oh, sa philosophie sa doctrine. <laughs> Uh-huh. sa proximité avec la langue française. Mhm. de vous pousser sénégalais yu bëri vers la littérature. c'est une période boobu war nañ ko tëj. Ah, moom mission. waaw non non non ñu mhm. tëj période boo xam ne apprentissage de la littérature. loolu amagul amatul njëriñ. pour un pays qui aspire à l'émergence. métier yi wax ay de technicien et de science. moom moo ko moom mooy Sénégal. bien Demba lu mu wax léegi am na solo. Ah. bu ñu jëlee métiers yooyu ba pare nag ñu teg leen en avant. ñu seet nan lañ koy organiser. ñu fexe ba mm-hmm. dama am benn expérience bu moo vivre man bi ma nekkee directeur promotion des investissements. Mm-hmm. dafa am benn société bu nekk parc industriel fii. Mm-hmm. bu tudd Sewakar. Mm. ay sénégalais ak ay ivoiriens ñoo ko moom. Sewakar dafa toll dafa ñëw def son plan de travail def étude de faisabilité def business plan ba pare. ñun ñu ñu ko doon jàppale au ministère pour mu installer wu installé na mais bu mu ne dafa soxla ay monétiste ñuy def ay monétique amu ko Sénégal ah mu ne ah kon Sénégal am ay métiers yoo xam amuñu fi amuñu fi dañu dañu e, obligé dem wëri ay jeunes yoo xam ne ay prédisposition mm-hmm. ñu def benn yóbbu Orléans former rapidement indi leen mm-hmm. am métiers par exemple télémédecine da nga dégg Sénégal ay ingénieur agronome ay technicien supérieur en mm-hmm. agriculture am loolu moo tax ñu war a basculer benn basculement de paradigme ñu jógee si littérature mm-hmm. ay lettres ay grammaire mm-hmm. ay yu demee noonu ñu bàyyi ko jàng français baax na waaye am na lu ko ëpp ëpp sa solo waaw am métier loo loolu loolu première considération maintenant bu ñu jëlee am na beneen aussi benn constat euh, je t'avoue que bi ma bi may bi may gëstu émission bi di ko seet ma si gis benn constat boo xam ne defoon naa ko bu yàgg. Mhm. ba fàtte ko mais mu ñëwaat tey. boo jëlee les vingt cinq plus grandes entreprise du monde. Mhm. tey vingt cinq. vingt cinq waaw vingt cinq yi. Mhm. nga classé leen. ñu leen créé benn om de lettres moo si nekk Nous ne sommes pas ay technicien ah, ah, ah. homme de lettres nous tudd Jack Ma chinois moi mhm. mooy ñuy euh, euh, commerce en ligne mhm. Jack Ma chinois mooy prof d'anglais exception mais boo les 25 ingénieur mhm. de science ay médecins. ñu ñu bo jàngee science et technique non seulement da ngay am njëriñ pour am salaire <laughs> mais da ngay gëna am esprit d'entreprise yo ya gëna a mhm. risquer sa bop risquer sa xaalis risquer sa alal ci defar entreprise homme de lettres mhm. euh, dañu gis ni wul trop entreprise mhm. waaw lolu maintenant buñu bëggé promouvoir emploi non salarié il faut que ñu bolé ci aussi lu mu doon junj sànq mooy le problème de la gouvernance mooy doxal gouvernance gis nga gouvernance dafa am solo si réew mooy depuis 2015-2016, ba ñu après lui ñu woo leen peut-être déficit de gouvernance gouvernance fu amul dina yàq koom-koom que soit volonté boo am mmh. dama lay jox exemple boo xam man man dama waaw foofu mooy sama mhm. sama waaw sama cosaan dama fay dem mhm. dama fa attaché wu mhm. waaye foofu dafa fa gis benn expérience bu ma metti ah. expérience bi nu ma méttee mooy dafa am benn cuvette bu ñu fa def xale yi di si liggéey boroom kër yi xale yi di si liggéey état bi def si lu ëpp un milliard xale yi di si liggéey waaye nu ñu ko aménagé benn wala ñaari campagne lay doon mu jeex mu taxaw tey cuvette bi dañ ko tëj xale yi si doon liggéey bàyyi foofu dëkk ba ñëw ñi dem Mauritanie. ñi dem France ñi dem Sénégal ñi dem fenen ñi dem fenen di taxawal te alors que affaire bi amoon na ndirign dafa waron créer sax ben exode rural en sens inverse. ñi jógee Dakar di taxawal fi dem liggéey fofu waye pour des problèmes de gouvernance kiñ ko jox. pour mu def ko numu ko défé ni baxul lolu mo wóor man dama ñëw ma xol ko ma gis ko ma indi fofu ay technicien man sama bop ak ñima àndal ñima ko bokal ñu yóbbu fofu technicien mu xol affaire bi mu ne aménagement bi baxul voilà xam nga loolu problème de gouvernance mi ngi si mhm, mhm. beneen bi mooy bu ñu jëlee beneen niche parce que léegi comme def nañu def nañu diagnostic. bien sûr les solutions. voilà il faut les solutions. ku def diagnostic yam foofu rek. tooñ nga waaw waaw. Mhm. solution bi mooy dañu am ay opportunités yoo xam ne war nañ ko saisir. Mhm. ñëw naa si agriculture bi. nga Sénégal tey dafa bugg moom boppam si affaire lekk souveraineté alimentaire. Mhm. mooy le mot clé di dernier di dernier euh, communiqué du conseil des ministres. ba Sénégal érigé ko en priorité ba def si ministère Aliou Ngouille Ndiaye loolu bu amé nañu dañuy top agriculture gis nga bu ñu les 240 000 hectares de la vallée au sud avec la vallée de l'Anambé au au au au nord plutôt ak vallée de l'Anambé au sud Sénégal ils ont des plus de ressources qu'il n'en faut pour nourrir nos populations et exporter dans les pays voisins beneen bi moy l'artisanat sarta Sénégal sort l'artisanat. artisanat sûr bo xamné fi lañ ko défaré suñu titre la suñu culture la moom la ñuy wax industrie créative mm-hmm. industrie créative mais loolu aussi boo xoolee nga mm-hmm. seet l'économie de l'industrie créative di nga am lu la metti mm-hmm. parce que Afrique waxuma sax Sénégal Afrique dañu am ay richesses culturelles yoo xam ne centre de profit la dañ ci war am liggéey am ci xaalis mais gis nga tey dafa am quatre films quatre richesses africaines yoo xam ne daf ñu rëcc tubaab bi jël yóbbu ko Luc le Lièvre dañ ci def film. Mhm. histoire africaine la. Mhm. ñu def si film Hollywood lañ ko defee. Mhm. indi dañu ko jaay ñu ko seetaan. le roi lion. fii la Afrique. Black Panther. Ouganda. tu vois ñu jël loolu yëpp suñu culture les problèmes de l'Afrique du Sud. les problèmes les problèmes de l' de la de la violence liée à l'Apartheid, apartheid. Hollywood dafa ñëw jël ko fii. Mhm. yóbbu ko foofu togg ko. ak ay acteurs noirs américains. Mhm. nga xam ne seen eh, ñun amuñu si benn wàll dañ consommateur rek lañu. Mhm. alors que loolu mënoon nañu développer benn filière ba mu nekk benn genre. industrie du cinéma industrie de la culture. du spectacle nga xam ne su eh, et puis avantage bi au au delà de xaalis bu muy indi. day fexe ñun ñu juboo ñu dellu si suñu cosaan. macha allah léegi maintenant en matière d' employabilité. Euh, man gis naa ñu def ISEP aussi loolu lu baax la le réseau des ISEP mhm. loolu lu baax la mhm. pourvu que mu mu egg mhm. maintenant euh, beneen bi mooy euh, maa ngi doon wax léegi boobu laay mujjee mooy mouton tabaski waaw ah, man tabaski waaw tabaski xam nga tabaski fait, fait bu neex la macha allah waaye mais man chaque fois depuis ma gis loolu ma gëstu si man ak ñi ma doon liggéeyal dañu man dafa am lu may met ba ma gisee xar yu jóge bitim réew Sénégal mën na chaque chaque campagne de tabaski daal pour gàttal Sénégal mën na créer 19 emplois yu bees. waaw ci xar yi boo xar yi nga yi consommer yi dem Touba si Magal Touba yi dem yi période boobu période boobu rek. li ñuy jënd si xar bu fekkee fii lañ ko doon mhm. mu def industrie du mouton de la tabaski. ñu am si ay emploi mais waaye loolu yëpp. problème gouvernance waaw non loolu problème je crois qu'il y a un réel un réel besoin de dialogue public privé. ñu takku ko maintenant dafa amoon benn instance Sénégal. Mhm bu conseil présidentiel de l'Investissement, mm-hmm. Moi, année bu président de la république woote secteur mm-hmm. privé mu janoog ñoom. Mm-hmm. mooy mu ne moi lan mooy seen directeur général APIX Top, administration économique yi Ni ñëpp Top, mu ñu noté def mémorandum mu dem jéem si yu mu si mën a réglé. loolu gëj na fi am. conseil présidentiel man bu de li may wax li amul erreur. amatul depuis novembre 2017 conseil présidentiel de l'investissement Lol, dafa amoon njëriñ Wow, dafa amoon njëriñ léegi ay conseil présidentiel sectoriel moo am mais investissement man mm-hmm. gëj naa ko fi gis Abdoulaye Wade moo ko fi tegoon yeneen pays yi mm-hmm. copier ko beneen mi ngi am

dañ ci ñëw léegi inshallah allah ngir commencé jeexal ndax mi ngi commencé gudd toogaay bu yàgg na. alors euh, damay ñëw ci mm, euh, ki nga xam si moo di mm, nguda Ngouda euh, dafa mel ni changer système mënut a ñàkk wax naa ko bu ñuy tàmbali. mooy réew su bëggee dox génn fa mu ne ci ay jafe-jafe daf war a changer système mooy sunu école bu Sénégal ni ko tëggee woon depuis 1960 dañuy war a changer ko nag réformer ko yu xóot yu sori. ngir nag ndaw ñi teel a jàng ndax réew yu bari tey boo demee États-Unis tey li ñu mooy xale bi waxuma université mais ca collège li ko waxee sàng lay commencé orienté ko mu commencé defar dara dama seetaan ba ci dem benn vidéo boo xam xam naa lu xaw a xeetaanu la waaye ñuy génne Sénégal ñu ngay tëgg ñu ngay fecc mm. waaw ñu ngay arwatam ñu génne xale yi chinois yi ñu nga taxaw concentré wu ñu ngay liggéey cek cek cek defar cek cek dafa mel ni ñun suñu culture Sénégal mm. dañ ñoo tëgg ci mpox da dafee bari lol ci lu beure beure bëri temps biñu def ci po fa bari par rapport ak temps liguey lol nak culture la bop bu dee culture la wala lu mën don am na nu ko wara a changer ci lol école lay tambalé wax nga dëgg ni Sénégal ane yi ñu muju ak internet bi ni mu défé ni mu amé doolé jamono ji fait divers yi lañuy gëna gis ni mom mo ëpp doolé quoi dafa dem ba nga baal ma dafa dem ba même consommateur yi population yi ngay xool télévision fi mu toll nii suñ émission yi def nii nga xam mooy dëgg-dëgg réew. Mhm. am na ñooñ xool débat wu politique politicien bee leen dàqal te fekk na lii mooy réew lii mooy tax réew suqaleeku lii mooy tax réew génn fa mu ne ci ay jafe-jafe. waaw xam nga am période yoo xamante ne nii même télévision yi sax. Mhm. dañ lay yóbbaale si. aspect boobu te mhm. léegi avec euh, les sites internet. téléphone si poste la. loolu moom ñëpp on n'en disconvient pas nga jot sa téléphone moo gën a yomb nga dem si télé bi di dem seetaan bien sûr bien sûr mais tey ñiy wax ñëpp si ay faits divers la ñuy wax bu ñëpp di waxee si faits divers les gens vont tourner vers les faits divers c'est aussi c'est aussi simple mm-hmm. euh, ma bëgg a ñëw si entrepreneuriat bi euh, monsieur li wax léegi parce que entrepreneuriat am na solo si mm-hmm. euh, cadre boobu may féliciter la DER mm-hmm. madame Abissi parce que bon moom moom siy taxaw. Mhm. récemment il a donné 60 financements au regroupement mhm. des diplômés sans emploi. 60 mhm. bénéficiaires. pour euh, dans le cadre de l'autonomisation. kon la tamit direction de l'emploi avec la convention état employeur. on a obtenu 52 postes là-bas. Euh, tamit tamit am solo ay ay mais bien vrai que. Euh, li li des moo ëpp doole. té bo xolé considération euh, mhm. chômage bi wala diplômé sans emploi yi. li mhm. ñuy représenté. Mhm. Euh, amna amna solo lolu mais changer paradigme moom. mënta ñak ci système. moy solution bi mom moy solution bi lolu mom on n'en disconvient pas demal Corée. demal Mongolie demal felen ak felen li leen développer Corée en 1992. fi Sénégal nek Corée moo Sénégal moo ko rawoon tey Corée mm. on on parle de Malaisie on parle de développement technologique avec Samsung et mm. autres mm. gis nga loolu moom mooy doxal réew le développement te nga nga investir si branche yoo xamante ni bien vrai que investir sur des routes euh, pour les fix flux de transport yooyu yëpp baax na mais nga investir sur le potentiel humain moo ëpp solo moo ëpp solo potentiel humain boobu noonu ressource humaine bi de qualité bo xamante ni liñu jang dafa jàng dafay leer ne nii mhm. doo ko jéggaani ji fenn nga momal ko sa bopp doo wuti expert fenn ndax mhm. expert bo fi indi fi ni mhm. bien vrai que am nañ xam-xam mais peut-être xamuñu réalité économique yi lool mom moy problème ndax ndaxte Sénégal dafa am ay réalité comme ni nga waxé du ñak jom motax euh, population bi top top réseaux sociaux yi ndaxte bu njëkk dañ naan góor bala mo nekk goor dëgg dafay dem ci waar wa mais tay bu goor bu démé ba ñak jom mhm. amna ay paramètres yu bari yo xamanteni ni war nañ ko sétu way ci loolu ñepp ci am ñëpp ci am cër ñepp ci am responsabilité muy état muy ñun en tant que sénégalais nañu nañu nañu am nañu fipp taxaw nak ci liggéey ndax boy sét dafa melni ni ñun euh, Sénégal da man dal gis na dal loolu gaay naan waaj naan j'ai peur dal hmm. man dal fi ne j'ai peur ci réew fiñ toll fiñ toll ni tay hein ah. parce que euh, xolal tay bo rombé mbéddi dakar yi. Hmm. ñii ñi ngi liggéey waaye ñu ci baree bari ñi ngi toog loolu tamit ñi toog ñi toog am nañ ci du du dëgg la du seen bànneex waaye nag ku ne bàyyi xel ci ni am nga loo war a mën a def ndax boo xoolee ka nga dendal ci angle ba am na lu muy def est-ce que itam doo ko concurrencé ni xaar mu def nangam ak nangam à côté. mais dama lay dama lay may benn euh, kii mm-hmm. si euh, par rapport ak euh, cadre des diplômés sans emploi. tey ñaata personne ñooy déposé ay CV. Mm-hmm. si biir entreprise. Mm-hmm. lan la lay njëkk a laaj mooy expérience cinq ans. loolu y' a problème aussi. <laughs> mais nit ki nit ki nit ki nga xamni day day génn fraîche fraîchement. Mhm. de l'université nga ne ko expérience 5 ans wala 15 ans def sa benn appel d'offre mhm. ça c'est ça pose problème. ça pose problème. du question de ñak jom mais mhm. ay ay ay ay ay débouché lañ amul. wala ay perspectives lañ amul. wala ay solu euh, solutions yi nga xamni mettre nañ ko en place des na lu bari macha allah loolu kese la alors ñu ci jëm ci jeexal ndax mi ngi commencé guddiim hmm. euh, dama jot sàng message yu euh, lieutenant colonel Henri Ciss Henri Ciss euh, hmm. takk der la ma nga ca fële ci bàngaas bi xeex mbirum migration ñu koy dënk ci Silek dañu am waxtaan bu yaatu ba teg benn politique et stratégie pour xeex mbirum barsa barsaax ji muy hmm. immigration li nga xam mooy régulière bi waaye jàppal ni yëpp rek benn taxañ bi la benn saako bi la bu emploi taxawee dëkk bi dox lu ci bare bari day jeex daañu ci ñëw alors solution yi Demba pour mm-hmm. jeexal ak yow euh, yaakaar naa réforme école bi lu mënta ñàkk la mm-hmm. loo ci dolli ci réforme yu mënta yu mënta ñàkk ñëw daar daar ngir ñu mën a changer fii Sénégal toll tey mm. waaw je pense que lii wax na ko hein. mm. euh, conseil présidentiel de l'investissement mm-hmm. euh, lu war la c'est un moment fort président jàkkaarloo ak secteur privé lu bëri dafa daan jóge comme décision président aussi ni na démarche après mars, qu'est-ce qui mhm. s'est passé On a mis en place un conseil national mhm. pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Mhm. Fumtol. Est-ce qu'il y a eu des réunions Évaluer. À la rapport qu'est-ce qui a été décidé Lolo... Lolo doit remplacer l'Union au conseil pour l'emploi et la formation bu créé en 2009 installé ko Bien installé fonctionné tout loolu jar deuxième chose président des conseil présidentiel pour l'emploi des jeunes jàkkaarloog jeunes jeune, waaye jeunes yëpp wax. Mhm. résultat yi fan la -hmm. évaluation bi lan la. Mhm. décision jël nañ ko mais fuñ ci toll. Mhm. xale yi li nga wane léegi dafa am euh, lu ma inspiré. Euh, situation bi critique na xamul tax mu critique. nee une expérience cinq ans nañ lay parfois. parfois les entreprises le font exprès pour dàq farfelu -hmm mais parfois nga ñëw un CV ni nga koy biddee mu rédaction de rapport waa ji xam na ni sa CV droit bi mu soxlawul juriste mais rédaction de rapport bob, il te prend pour le moment ngay ngay gérer yenn situation yi mm-hmm. wala ngay bind mm-hmm. c'est-à-dire que yi même le service public est presque mort mm-hmm il faut qu'aujourd'hui nous créions un service public balèze. Mhm. qui encadre qui oriente. Mhm. service public boobu forcément day emploi. Mhm. mais programme national stage nous nañ ko jeune bu ñu perspective en relation avec le secteur privé. nga avons ne convention état employeur nous avons une dénomination depuis 87 la. avons une dénomination bu programme national Sénégal. voilà insertion nga am building bu mat structure yëpp yi géré emploi mhm. dugg fa. Mhm. kenn di rendre compte comme pôle emploi num le koy conseil d'administration. très bien ñom wax nañ ko. Mhm. problème de gouvernance dañ ko waxul mais problème de nañ am. waay PSE. axe 3 bobu li wax ay gouvernance paix sécurité justice ak yoy problème bi fofu la feuyté très bien le ministre le premier ministre Amadou Ba biñ ko nommé premier discours am. dama ci am inquiétude. té am na ñuko signalé signaler aussi. ah bon il a parlé de l'axe 2 et de l'axe 3. Premier ministre fait top axe 1. transformation structurelle. Oui, transformation structurelle de l'économie. tey lu la nit conseil lu nit mën wax. transformation secteur euh, kii structurelle de l'économie Bobo. Mhm. bu nous jógewul ci secteur non productif yi jëm ci secteur productif yi. Mhm. def au potentiel. transformation xoola dara du dem. dañuy wax nii rek. yii yëpp chirurgie lay nekk. Mhm. joxe ñetti emploi ñeent et cetera. c'est ce qu'on a fait depuis 60. ça ne règle rien il faut que l'économie bi am ah. benen doxalin. moy li ngay wax rupture totale. Mm-hmm. dañ koy tudd déconnexion. wala ñu ni la déconstruction reconstruction. Mm-hmm. il faut que système bi. ni mu teggo ni toj tabaxat ñu toj tabaxat xool lan moo ñu mën de l'avant. Mm-hmm. il y a également un vieux projet qu'on avait. comme gouvernement de ko refusé et nous, on ne sait pas pourquoi. oui et c'est depuis Ablaye observatoire national pour l'emploi et la formation tey dina la wax métier pétrole dina la wax métier gaz dina la wax mm-hmm. emploi vert dina la wax mm-hmm. mais quand tu n'as pas cette instance là mm-hmm. mu liggéey xool secteur bi un type d'emploi moo fa mën am quantifier les projections yeneen étude yi ñuy def yëpp dañuy def étude nii rek mais observatoire moo mën def loolu mooy mën a jàngat di xool li xew jàngat di def projection si marché bi ANSD li muy def mooy situation début la rek début la mais situation lay def mais observatoire mooy tëgg ba mu leer indi lay wax artisanat bi mhm. li ak li ak li fu am comme mhm. emploi emploi formation yi ngay def extra école yi inspiré aussi di mhm. former noonu secteur privé xam li ak li ak ce que nous dañ de côté politique emploi comme j'ai dit amuñu stratégie programme national de stage dañ am donc évolution yi ñu mënti def suñu stratégie duñ dem problème de gouvernance moy lan ñun système de gouvernement na fonctionne fonctionner ministre système de gouvernement non ministre bi mo war def lepp mo war ben moment ministre yi dañ premier ministre dañ. Mhm. kenn waxatul ministre yi ku nek président mhm. ngay waxal. té lolu ben blocage lolu normal mhm. xam lan mo normal. moy système de gouvernance moy emploi bi. ñu tek un cadre de concertation permanent. tek des structures d'exécution. nit ñi di ko waxtaanee. di fa seen problème ñu xol nan la ñëpp di waxé parce que parce il y a énormément de structures qui sont cloisonnées aujourd'hui. Oui, justement. Structure, vous n'avez pas de mais communiquer avec une structure. Mhm, mhm. Nous mêmes on avait parlé de système d'information unifié sur le mhm. marché du travail. Vous savez, les Sénégalais, vous n'avez une plateforme comme inscrite dans les fonctions publiques. Si vous avez ce numéro carte d'identité, vous allez identifier le ministère du Travail, vous avez contrat de travail, vous allez identifier ANPEJ, vous avez déposer, vous allez identifier. L'État doit maîtriser la population. Ouais ñun suñu souveraineté boobu. Mhm. def nañ ci lu bëri. mais ay armée ak militaire ak yooyu nañ ko jàppe mhm. alors que il y a des questions beaucoup plus complexes. aujourd'hui nos problèmes peuvent avoir des mhm. des des, des origines d'ordre interne. donc axe euh, un bi. dañ fay liggéey. waay PAP 2A bi. PAP 2B nañu war indi. annoncé nañ ko tamit yéex. il faut que ñu ñu tëggaat wanewaat yeneen orientation yu bees. parce que Covid jaar na fi Ukraine jaar na fi. changement yi bari na. mi ngi noonu l'autre aspect moi, ce ma inspiré euh, euh, dame indienne États-Unis migré mm-hmm. Mm-hmm. créé une entreprise mm-hmm. inondation une entreprise unis université prof thèse dame bi Saras Sarasvati tout. changé un peu ni réfléchirait à l'entrepreneuriat au niveau mondial très Mhm. effectuation la wax mhm. li nga sous la main si lolu ngay commencer mhm. très bien financement ce n'est jamais un point de départ pour pour boy daf dab secteur privé bi y a wax financement y a wax fiscalité mais xalé so yoré 10000 commencer le 10000 ñi di raxas dal université moy lan dañu commencer ak liñ Vous ñu commencer 2000 dañu tek feulé allez commencer à 2000 francs Vous allez commencer complexe nga tek feulé 2000 2 nga yor nga duggal ya moins de risque ngay dem ba yoon bi lèr très bien Demba euh, mais Demba programme la. Mhm. mais dama tiit mën naa boole question bi ñu tàgguwaale ci. Mhm. mooy Sénégal mi ngi jëm ci doon pays gaz ak pétrole. ca loolu man na euh, depuis ñetti at maa ngi dégg fekke naa yenn waxtaan ay séminaire. Mhm. d'ailleurs lu ma gën a inspiré pour waxtaan bi am bokk na ci. mooy ñu ni métier gaz ak pétrole wala bu dee pétrole doo ko ñaare lu mat vingt et quelques métiers mi ngi ci biir. ëpp na ko voilà ëpp na ko kon léegi tey ñun est-ce que dëgg-dëgg am nañ ay ndaw.

day hmm. nekkaat rek dem ñu gën di ndol té pourtant dëkk ba nga yëngu ñu ngi génne ay kom kom yu bari nekk ay milliardaires. Hmm. lool tay rapidement lo ci am comme point de vue. wa rapidement. me me me rappeler aussi ben élément. Hmm. man dama dëkk fini wax Dagana comme il le dit. Dagana ñu nor bi nañ dëkk. wa ci diwaru dex Dagana dafa am entreprise bu fa newoon ñu ko doon wax SNT Sokas jëndëk. Sokas tej waay structure ba nekk fa. ba tay ba nga tégué xott. mi ngi tégué xott. tey diplomatie économique bi ñuy wax. loolu privé moo ko mën gérer état du ko gérer. Hmm. Mhm. mais nañu travailler à ce que un privé national mën jël loolu. au moins au niveau du nord def dara. am nga information boobu daga non il le savait comme que mais mais nag. club baa ngi fi moom non dooni club bi rek. Eh, c'est-à-dire dooni club bi club bi mënul lépp. Mhm. mais même ci réfléchir gouvernement ah indi ay waxtaan ak yi demee noonu noonu mhm. loolu boo ko yëngalee ci benn dëkk mhm. privé yor ko mhm. mu yëngatu day yëngal dëkk ba compagnie sucrière tout le monde sait ce que ce qu'elle a comme impact au niveau du nord entre sept mille et onze mille emplois même boo nee gañe naa fa gañew ma fa xëy la yooyu nañ soxla di euh, rappeler également ni am na loo xam ni désastre lay xew niru te man daf may gêner aujourd'hui seetlul du ma démentir Sénégal dañ toll situation bo xam ne mhm. chômeurs yi ñooy formé à la recherche d'emploi mhm. Mhm. les salariés ñoy formé à l'entrepreneuriat c'est ça inverse bi c'est-à-dire que situation boobu lan lay prouver moy ay contre-vérité la nit ñi di di di joxanté ba finalement système bi kenn du si mën ñëpp ànd suux mooy sérieux bi may wax di wax ni gouvernement mu ngi def effort mais ñun suñu discours du comme par exemple lépp dox na nañu wax li dox li dox naka ministre yi wax. li doxut kay mañu ñu tax mais buñu togué toogee mën nañu wax ni fi moy metti nañu mhm. corriger parce que lolu moy lolu loolu moy la vision critique et gouvernement def na. Mhm. et et et je pense que les gens. ont travail mhm. pétrole gaz am nañ ko. dafa am li ñuy wax syndrome hollandais ñu koy wax nu euh, euh, ñu koy wax sax Dutch disease. ñeneen ñi di ko wax la malédiction des ressources humaines. des ressources comme adresse naturelle. kooku am ña titre faut que am mën na bañ bénéficier aux population mhm. pétrole gaz ils découvrir nañ ko. Mhm. ñu ni loi sur le contenu national. Mhm. loi boobu mos nañ ci waxtaan club des investisseurs na. mais ce qui njëkk attirer attention mooy. loi bi wax nañ ci société euh, entreprise nationale wax priorité d'embauchage du personnel local etc. mais est ce que yéexul par rapport ak le préparatif parce qu'on parle d'exploitation. Est-ce qu'on a suffisamment aujourd'hui formé mhm. pour que la priorité nationale là mhm. puisse être exercée Mais mettons, amener un national pétrole gaz uh-huh. déjà l'eau c'est un grand bond en avant mhm. dina permettre Sénégal non seulement mu mu tàggat ay jeunes am. Mhm. préparé wu nu ñuy gérer la situation mais aussi drainer sous région parce que Sénégal tàmm na aussi. parce que man li ma dégg mooy ñi ma ci contacté ñu bari mooy mhm. ñu ngi Russie mhm. fa la ñuy jànge léegi métier pétrole la gaz ak yu mel noonu. ma ni sori na du ñëpp am les moyens. non am nañu amee bu ñu amee institut bi noonu tey. ubbi ko mu yaatu. ubbi ko la bourse yi génn. mu ngi dox. léegi ndaw yi gaaw man cee dugg. mu ngi dox ba d'ici deux ans quatre ans mais buñ ko yàq parce que boo xoolee presque tey. Euh, école du duñu jël pétrole gaz def ko seen seen kii aussi. nar ko loolu c'est c'est un autre problème. donc donc uh-huh. ñun daal li ñuy wax nous uh-huh. rapidement uh-huh. na dem vers gouvernance ñu le système bi. mu nekk li ñuy avec le secteur privé. merci beaucoup Demba prioriser. investir sur les emplois numériques. investir sur les emplois verts. l'économie créative l'emploi orange. il y a autant de potentialités qui xam ne accompagner notre secteur privé am ay champions. et je pense que c'est de cette seule manière qu'on pourra quand même faire. le. merci beaucoup Demba Demba merci beaucoup alors Abdoulaye un peu de tàggatoo.

J'ai ji option sur le papier li ñu bind. Moi, créer un fonds mm-hmm. pour les générations futures. Bah. Voilà. voilà. Moi, créer ay instituts de formation. comme l'Institut mm-hmm. national du pétrole et du gaz. Moi, créer des systèmes d'impulsion, des fonds d'impulsion, impulsion. loolu yëpp baax na waaye dafa am loo xam ne man euh, pétrole et gaz. c'est un test pour notre démocratie. que ah nga pétrole et gaz démocratie bu mu génnee. fu mu bu pays bobu démocrate la gérer nañ ko de manière optimale ñëpp gis seen bopp. macha allah bu pays bu démocratique. démocrate yàq na fof mhm. ñun nak est ce que daf fay wala daf fay des na suñu niveau de démocratie. Mhm. très bien de ce point de vue test la. Mhm. benen bi ben invite. moy li ñu bëgg def en matière de souveraineté industrielle alimentaire. Euh, dañ ci il faut que ñu bolé ci lo xamné moy la première contrainte à l'investissement au Sénégal moy le foncier. très bien. tey jii kon bugg ñëw am mm. ay terre yu bëre mm-hmm. nga bay foofu di nga am problème mu suuf Sénégal problème mu suuf am na fi am te c'est la première fois dans le classement mm-hmm. Sénégal fépp fu ko classé mm-hmm. dans les classements mondiaux da ngay gis ne Sénégal contrainte boobu contrainte tenue la mag la très bien loolu maa ngi si invité gouvernement yi vraiment ma lay gërëm bu baax Abdoulaye rapidement looy tàggatoo Ngouda Fall su may tàggatoo di nuyu ñi nga xam ne ñooy diplômé sans emploi yëpp nuyu suma

bien vrai que amuñu ben niveau d'instruction instruction bi. Mhm. mais mën na leen a jàppale si. ci ne fa nga tollu fa nga toll. Mhm. Euh, beneen bi ci tegu may wax ni par rapport ak euh, pétrole ak gaz bi. Mhm. nañ ko teg ci yoon rek. ndax té buñ ko tegee ci yoon rek. lépp dina dina dina dina jaar ñu euh, ñu créer ay filières yo xamanteni ni ndax té loolu mom moy filières yo xamanteni ne tak ay filières ñu fi dégg ay gestion pétrolière mais des filières techniques.

désormais ñëpp samay consultant ngeen di doon ndax soxal naa xam-xam bi ci Sénégal soxal na lii pour ñu mën a développé wu vraiment Abdoulaye yow tam nga représenté woon li nga xam si moo di euh, club des investisseurs du Sénégal wala sénégalais ñu gërëm la bu baax a baax a baax war nañu ànd ci waxtaan aussi ak euh, ki nga xam si moo di euh, Mamour Cissé mm-hmm. ñu koy massawu dafa am empêchement yi nga xam moo ko jàppam mm-hmm. moo jamono ànd nag di massawu coonoom di mm-hmm. ziar mbooleem njaboot gi di gërëm équipe bi ànd ak ñun boobaak léegi l'équipe technique jaa ngeen jëf la rédaction jaa ngeen jëf ba ëllëg incha allah ci beneen mardi yeneen sujet ak yeneen invité jaa ngeen jëf